marhaban kaddu yu tukkee ci président Macky Sall jëmale ko nag ci artu ay maire ya nga xamante ne dañuy amal ay recrutement ci seen i ay maire nu mu leen neexe moom la mboolem yéene kaay xëyee ni kii tey jilee l'info nañu ab guerre daal nay ubbeeku ci diggante président Macky Sall ak kii di Barthélémy Diaz ndaxte yile kaddu yu tukkee ci njiitu réew mi daal dina tax bi ñu bëri daal di ci addu ci mairie bu Ndakaaru Barthélémy Diaz mi jiite mairie ba tey jàpp ne kaddu yooyee moo ko moom ni kii tey suñu naataango yi ñu ngi xamle ni fas yéene na ci indi ci bu tontuwa waral critique yéene kaay nañu mairie bu ndakaaru ak présidence de la république ci ab jàmmaarloo bu tar la ñu fas yéene dëkkee moom Barthélémy Dias xamoon na ni bu muy recruter ji ay noonu nguur gi président Macky Sall dina yëkkati kaddu jëmee ko ci moom ak nu mu manti demee daal yéeni kaay bi ma ngi xam ne ni recruter bu Barthélémy Dias recruter capitaine u gendarmerie bi le di Seydina Oumar ak Guy Marius Sagna neexut benn yoon nguur gi Birahim Seck coordonnateur forum civil ci biir yéeni kaay Sud Quotidien mel ni kuy tontu président Macky Sall di xamle sénat ba di commission électorale nationale autonome lenn génn ko nekku bu jalgati jëmale ko ci luwaaya Moussa Sarr porte parole LD bokk ci majorité présidentielle bi mel ni ku koy tontu di xamle ni président Macky Sall li mu wax kay amut lenn lu ci menace ab woote rek la jëmale ko nag ci ñuy gën a bàyyi xel ci suñu luwaaya ci joojule jamono Abbas Fall di adjoint maire bu njëkk ci ville bu Ndakaaru bokk itam ci parti Pastef bu Ousmane Sonko daa dinay waat di xamle ni président Macky Sall munta révoquer kenn ci biir Vox Populi moom Abbas di xamle Macky Sall mi sàkku ñi sàmmonteeg loi yu tënk institution ya daanaka lenn rek la nekk ci réew mi moo jalgati yooyu lay regal ci bopp réew mi tribune yéeni kay daal di koy ku koy déggal di xamle ni ci jamono ju président Macky di menacer Barthélemy Diaz ci jamono jooje itam ay scandale di ay njombe ñu ngi ne xas ci biir réew mi li ci corps de contrôle yi a bët amut genn topp guñ ci defa ak nu mu manti demee daal yéeni kay bés bi le ma ngi xamle jilee fas yéene naa yëkkati kaddu jëmale ko ci ay recrutement moom Barthélémy Dias ak président Macky Sall seen bileeg xiiroog ngaayo bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi tàmbale wu tey Walf Fadjri yéene kaay ko soxal moo di politique d'assistance sociale nguur gi suñu naataango yi mu ñàkkee bekk ci bourse de sécurité familiale yi président jël na dogal fas yéene séddale ñeent fukk ak ñetti milliards yi francs ngir daal di koy jébbal juróomi téeméer ak naataango yi daal di jàngee ci ne président Macky Sall defut lu dul daaj ay millions yi millions yi sénégalais ngir ñu woy ci seen wàllum dépendance sociale li ko waral moo di ne koppar yu ni mel mëneesoon na ko financer ay projet yu ndaw ngir ay junni junni sénégalais man cee daan seen ay doole mën am itam lu ñuy suturloo ginnaaw jàmmaarloo yu dox ci diggante l'armée bu Sénégal ak rébellia fale ci Casamance yéen kaay Le Quotidien ma ngi xam le ni nguur gi dooraat na liggéey yu muy amal jëmale ko ci wàllum déminage di maanaam sulli ay ndell ci téeméer ak fukk ak juróomi ñett ci ay dëkk yu ne ci butu saalum réew mi ñu naataango yi jàpp ne loole war nañ ci gën a gaaw ndaxte yile mine daar nañu juri musiba ci Casamance lu tolloo ko juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay doomi adama daar na leen fay faat fu mu toll ni nag lu tolloo ko ñetti millions yu teg ci wàllu mètre carré ñoo des ci ñu war a déminer benn million bu teg di maanaam 1,3 million jëmale ko ci ay mètre carré la ñu déminer ngum foofu la ci Casamance jaa ngeen jëf